xool Pape tuuti rek waaw xaree ko àjjana ak bépp mbooloo bu mu fa fekk di jullit ah. waaw di nuyu sama sëriñ sëñ ak Aliou Mbacke bu baax a baax hmm. nga jub bés maa nuyu sama papa Aliou Salaam sama papa Kayra nag maa koy nuyu waxal bu baax waaw depuis combat bi taxaw war na sëriñ Touba chaque jour kenn jaaroo lay jóge joxuma ko dara mooy ñëw entraîné ma teg ma si yoon maa koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg si xolam rek yàlla defal ko ko barke sëñ Fall waaw nga jub bés war a bëre fourrière bu Grand Yoff naka nga waajalee bés bi. waaw sant yàlla rek di nuyu waa Medina yëpp. waaw ndax ñoom ñoo tax mu may dem di bëre maa leen di nuyu bu baax a baax si mel ni suñu na si bu baax ku si waaw ku si mel ni Samba mhm. comprendre nga di nga ñëw ci gërëm bi mais dañ lay ni nga waajalee bés bi parce que champion ngay bëreel maa ngi waaj ànd samay mbokk ànd samay papa yi moom ñu ma war a àndal waaw ku si mel ni sama papa Kayre ku si mel ni sama papa Abdou naar comprendre nga su ma liggéey damay bi lan la laaj bëri a non lépp rek rek lu ma tegoo rek yoon laay tegoo xam na ni moom xam na xam na lamb wàññi poids bi ko waral non xaw ma si dara instant xaw ma wàññeeku naa wala wàññeeku bis bay sàlla bu ñu simmee ko nga xam ne damaa wàññi poids wala dama athlète wala xam nga ki nga war a bëreel waaw xam naa ko hmm. waaw di ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla jàmm lu jour combat bi yàlla may ma ndam ci bat seen Fallou hmm. pour yow moom lan mooy fooram pour yow lan la mu gën a. non xaw ma luy fooram man sama foor laa xam yëpp nañ ma daal lépp lu lu fay xew man maa ko fay def. Hmm. waaw bëri koo xamul li muy li muy bëreel est ce que loolu tamit wóor na. non yàlla baax na ñun ay ay làmb ñoo ñoo xamante ne dañoo xam làmb ñoo ma yar waaw. waaw bëre ba combat bi am nañu ñu jàpp ne maanaam yow bëre bi moo la gën a waaw lu mu andi rek. waaw lu mu andi rek man daal damay ñaan yàlla. yàlla ma yàlla may ndam bu sedd guy ci barki sëñ Fallou di nuyu sama ñoom papa Samba Ndour ku si mel ni sama papa Diaw Ba xam nga ku si mel ni père Giraan père Goud ñaan waaw maa leen di nuyu bu baax. jërëjëf bébé Diène ñu ngi lay nuyu démb dañoo dem Grand Yoff dem Grand Yoff seeti fa Fourrière mu ne moom nangul na la sax champion mais chaque jour yow foo toll joxoo ko cër li mu moom wala li mu mane nanguloo ko ko mais bu suur dina xam ne champion day nangul moroomu champion champion. waaye saa jox naa ko cër nag. jox naa ko cër ba jouru làmb ma joxaat ko cër yàlla may ma ndam. yaa loolu lu may wax. Ah. waaw côté mobilisation. waaw gis nga lu mu fi fekk. lépp rek maay sant yàlla bu baax. waaw di nuyu sama yaay bu baax. di nuyu ñu may àndal ñoom ñëpp ku si mel ni ñoom tubaab ñoom laay. booy dañuy sonn si man ku si mel ni ñoom Koutia ñoom Youssou ñoom Lamine moom ñoom Momar Naar. maa leen di nuyu ku si mel ni. waaw ñu ñëw ci côté bi. day daje comme li ma la waxoon loolu mu génn minute mu génn na ci ay minute lan nga na nee na ndiis solo boo ci tegee jaasi dal sa loxo. waaw moom nee na ma ko su ma ko ma la. ndiis bi ndiisam la ndiis bi ndiisam la. man dama koy coppati rek àndil ko waa Medina yokk jëli ko def sa waaw rang muy gaaw rek yàgg na am am am lu am lu xewoon di nuyu di ndax man pël Fuuta laa. waaw hiwraade on kala ko pël Fuuta woni yor walli ko ɓiɗɗo mo woni jippirɗo ɗo côté waaw toɗo ɗon laam fof on bi am na am na lu côté fair play am na lu xewoon fene fa sa arène nationale récemment est ce que yéen a yéen a ngi ciy bàyyi xel waaw maintenant yàq lamb musuñu waaw ku si mel ni xam nga sa papa kay rek ak gars bu ñu leen gisee rek booy dañoo am yar man ay booy am yar laa am te jour làmb ji dinañ ko xam soxlaw ma ko sotti dara du ma ko sotti dara jour làmb ji daa xam la laa nga ñëw taxaw rek at bu sufle mu def statut mu fii ko ma dem wooteel waaw maa nuy nuyu sama mbokk mbër yi teew fii yëpp waaw ku si mel ni sama turandoo Diène Kaïré maa koy nuyu baax jàpp na si combat bu baax mbay guy gi xam nga ñoom mun lidee ñoom duubu góote aada faas sama grand bas na xam nga maa koy sant baax sama grand bas waaw jeexee wala ci bëre ndax gis nañu sa adversaire ñu bari dañ ne pourquoi Fourrière ci loolu nee na ko baba lu mu laaj rek man lu ma laaj rek man sama papa Kayre dox na ma lépp waaw lu mu laaj rek naa ko si fekk. waaw lu si mu waaw sëñ Fallou rek yàlla baax na. waaw rek maa ngi nuyu waa Tiwaan Pël bu baax di nuyu sama nijaay di nuyu sama maam di ko ñaanal yàlla gudd fan. waaw di nuyu ñi may àndal ñëpp waa Medina ñoom ñëpp maa lay nuyu. ñu Rebeuss Gueule Tapée Fann Grand Dakar Fass lépp maa ngi nuyu ñëpp. waaw di nuyu ñoom Mamadou Mamadou waaw kooku moom papa la. waaw boobu daf ma jàppale bu may nekk xale ba léegi ñuy xam ne lépp waaw di ñuy ñoom booy reefan booy booy reefan day taal oto comprendre nga di ma yóbbu di nuyu ñoom buur sin waaw maa leen nuyu waa écurie Sumbul ñoom Forza surtout Kewel waaw maa leen di nuyu Moussa Faye Vinge comprendre nga fer kase nag docteur kase bu Serigne Saliou maa koy sant yàlla bu baax waaw Modou Baye Fall maa koy sant yàlla bu baax Bas. Saliou Soudeur waaw Baba Diaw maa koy sant yàlla bu baax Lamine Gassama ak waa écurie Soumbédioune yëpp waaw ku si mel ni sama papa Gora Ndoye maa koy bu baax waa Espagne ñoom buuna maa leen bu baax looy wax lu ma koy wax amul lu dul na ñëw teg mbiis bi rek ma coppati ko yóbbu ko waaw di nuyu waa kër Oumar Anne bu baax sama papa Oumar Anne waaw ndax seen gaal laay nekk ci kaw ñu mooli aan ñoom ñëpp di nuyu ah waaw jaale nag waa kër Bilal Fall ndax man fa laa juddoo yaroo waaw Abdourahmane Fall benn turandoom saa sama amee daan Fall maa koy ñaanal yàlla ci laala Fall yal ko yàlla yërëm xare àjjana fu mu dem dàqal ko fu mu jugee di nuyu waa Mbote di waa Mbote bu baax maa mbay kilim maa koy nuyu bu baax di di nuyu waa Mbote waa Mbote maa leen di nuyu Mbote ñoom laay Cheikh Babou xam nga ñoom Pape Gueye waaw la gaay bu baax waaw ñoom ñëpp xaadim ba sama papa xaadim ba la maa koy nuyu bu baax ku si mel ni ñoom Sall Matar Fariñ ñoom laay xam nga maa ngi nuyu ñëpp yàlla naa ko daan moom miy xale. kon kay paax laa daan le 14 moom mooy xale yàlla daan mu premier si xale waaw sëñ Fallou man topp yàlla rek. lu ma yàlla may loolu laa man dama gën sama bopp lu ma yàlla seetlu rek moom laa jël waaw maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacké baax sama Samba Ndour maa koy nuyu baax Fa Bambara ñoom Amath Fama sama joueur yi ñoom ñëpp Mam Ngor Samb maa ngi nuyu ñëpp Samba Ndour ñoom waa sama gars yi waaw ñoom Bouna ñoom fi mu toll. ngay waajal sa poulain ba mu toll fii mu nekk nii. làmb lan nga yëg ci làmb ji. waaw li ma ci yëg rek mooy que euh, macha allah boo demee ba nekk ci benn mbir ba génn ci nga ay doom yoo xam ne dañ ci commencé dem ba euh, si mbaaxu yàlla dem ba commencé dugg ci yenn combat am solo yi loolu lañ ciy sant yàlla écurie Simba Jung moom amul secret li ma leen gëmloo mooy il faut travailler beaucoup travailler parce que làmb ji yombul ku bëgg lu yomb bàyyi làmb nga def leneen déjà làmb ji yombul am combat yombul. tu as vu donc euh, xam nañu loolu ñu si siy ñoom xale bi ku ko gis xam na liggéey nañ ko ñu ngi naan wàññi poids yokku poids mais tey lépp rek sant yàlla la parce que li nga xam ne dañ boo ko joxee mbër mu am dam lépp liggéeyal nañ ko loolu te bu bés baa incha allah si tout va bien xam ne xale bi du ay caaxaan moo koy daan. dayoo combat bi fi mu toll Bébé Diène mosul bëre combat bu toll noonu. waaw moom mosul bëre combat yu toll nii mais tey na sant yàlla mun euh, man it naa sant yàlla parce Euh, nga ànd ak magu làmb mu lay teg si yoon dafa am solo ñun xam nañ ne mosul bëri combat bu toll nii ba si engouement bi ak mobilisation mosu ko am mais incha allah bu bos baa dinaa ne ci wetam gunge ko teg ko si yoon cadre ko parce que des fois xale yi rek boo leen bàyyi rek mun na xam euh, euh, fukk de jeunesse bi jàpp leen mais écrit suma jun loolu am fa nañ ko topp nañ ko topp teg ko si yoon ba incha allah am victoire si kàttanul yàlla. ndax combat bi diisul. non combat bi diisul xale bi kuy kuy ñoom franc ah kuy bëreeg xale bi mi ngi ci mbapat yi moo tax suñu xel dafa gën dal te ñi nii ku ku jonganteeg ñoom te ku si nekk gis na ne bëri naa ñooñu ba tàyyi mu am nu mu demee yéen fekkee ngeen ko kon bu demee bay bëre fourrière ñun am côté boobu wax l'essentiel gi daal xale la am na doole bëre bi mi ngi si moom li des nag ñun ñoo koy complété rek ak fourrière fi mu toll ci bëre Bébé Diène ban stratégie la nga yaakaar ni war na ko mën a aborder pour mën a daan fourrière waaw stratégie moom mooy euh, lamb moom li koy njëkk a wax mooy tey rek parce que mënante wuñu xale yi mënante wuñu donc bul def ne mukk yaa ko mën man gëwuma sax loolu sama philosophie mooy pour pour nga mën nit il faut nga daan ko ba toog ci kawam mais gëm naa ne liggéey na loo xam ne ku dul Fourrière Bébé Diène mun na la daan ci ci courage ci sérieux aux entraînements ak kilifa gi nga xam ne nangul na ma ko ma koy teg si yoon waaw donc mun na daan ku dul Fourrière. bëre bi kenn waxatu ko mais fi mu toll nii mobilisation bi mhm. tey boo leen doon ñaax loo leen di ñaaxee. waaw mobilisation bi mooy que tey jii képp ku nekk Médina au niveau mobilisation nga wax dem nañ gis la nga jàppale ko pour bër bi bés parce que aussi ñëpp xam nañ ne promoteurs des problèmes d'organiser des combats moo tax côté ñi nga xam ne ñoo nekk Médina ku mel ni Seydou Gueye ah ku mel ni ay Cheikh Ba Messi ah, ak nga xam ne ñoo fi nekk comme ay politiciens ay Bamba Fall dem nañ si ñoom ñu jàppale ñu pour jour ba daal vraiment promoteur ne moo financé xaalisam na ñu mun ko satisfaire euh, bi donc ñu ngi si côté boobu tey du ma la laajul ñoom ñaar seen taay ban genre combat lañ mën a xaar su ma la ko laajul ñu bari dinañ ne ma mënoo jàkkaarloog champion. te laajoo ko ban genre combat lañ mën a xaar. man de li ma gis ban genre combat Gris Bordeaux Eumeu Sène laay gis. taay yi. waaw Gris Bordeaux Eumeu Sène daal laa gis daal combat boobu moo ñëwaat danañ xeex danañ bëre. kon daal mën nañ xaar komba bu saf-saaf. combat bu toj lay doon man maa leen wax lii. per